ndaje bi tey dañ ko organiser euh, pour mën a sensibiliser ak informer toutes les femmes handicapées du département de Guédiawaye c'est-à-dire les cinq communes que compte Guédiawaye euh, dañuy ñëw pour sensibiliser leen informer femmes yi fa nekk nekk handicapé te yore carte d'égalité des chances pour ñu mën leen a enrôler ci couverture maladie universelle muy CMU ñu di leen ci informer parce que tam ku xam femme handicapé yi xam ne dañuy am ay problème mu santé li ci mel ni santé de la reproduction santé de la reproduction maanaam wàllu njur gi accouchement li nga xamante ne dafay nekk problème ci ñoom lu ci bëri césarienne lay doon donc dañuy ñëw pour sensibiliser leen ci loolu pour sëy mi mën a jël en comme préoccupation femme handicapées yi par rapport à la santé loi d'orientation sociale bi ñu ngi ciy def ay jéego ba tey di ci continuer di sensibiliser ngóor gi et je pense que mi ngi am ay avancement parce que léegi nee nañ ñu même ku yorul carte d'égalité des chances bi am na benn papier bu ñu lay bindal bu ko mën a remplacer quant nag loi bi ñu ngi xaar actuellement ñun lider yëpp ñu ngi def ay plaidoyer mais ñu ngi xaar effectivité loi bi parce que quoi qu'on puisse dire loi bi préoccupation handicapé yi la donc bu ñu ko traduire en droit def ko ci loi boobu may wax donc bu ñu ko defee effectivité rek def ba nga xam ne ñu ngi koy def application effective dina tax ba suñuy besoin yépp euh, ñu saafara ko ci wàllu santé am nañ ci jafe-jafe yu bari dama koy faral di wax surtout jigéenu handicapé bi tey su demee ci hôpital ba accès à la santé problème la parce que du handicapé moteur bi rek boo ñëwee accessibilité dina gën a doon sa problème pour dugg nga ñëw bu dee femme sourde bi la accueil parce que langue des signes duñ ko def day am problème pour communiquer bu nekkee aveugle bi aussi dina am problème orientation dans les services euh, yi nga xamante ne service su santé la parce que lu ci bari amul ay signaux sonores amul lu koy indiquer ay affiche am du am braille du am dara donc je pense que préoccupation yi bari na bu dee femme albinos bi la aussi rang yi ñuy def du ko arrangé par rapport ak soleil bi des fois naaj bi day tàng ñu di la ranloo te ku xam albinos xam ne dafa am problème mu foofu waaw